C'est la ne un grand un grand monsieur un xamante monsieur, un Doudou monsieur, mhm. ki nga monsieur, un su Il mhm. a ay ba un bi septembre mhm. mais dans une semaine le 10 septembre dafa 15 ans de mariage je pense que nag nit boo ko fréquenté quatre ans mhm. nga sëy ak moom quinze ans muy dix neuf ans mhm. soo ko xamul keneen ba xam dëgg la Aïssatou dama bëgg séeréer ni ñëpp ngi may déglu mhm. Afrique ñëpp ngi may déglu ñëpp ngi may dama bëgg séedal nit ñi nit ku baax ngi noonu toog góor dëgg ngi noonu toog ci àdduna mm-hmm. ñorul ci dara mi ngi noonu toog mm-hmm. ay sotu sama jëkkër fekk ma may taxawaalu daf ma fekk ma takk sama ndigg di liggéey dëgg la Doudou Coulibaly daf ma jëlee ci un yóbbu ma si cent wallaay ndeysaan noonu la li li góor di teralee soxnaam bu muy sëyal mm-hmm. Doudou Coulibaly maa sa boobu teralee na ma ko dëgg la macha allah Aïssatou en 2015 bu ma Doudou Coulibaly di jëndal oto ma koy dawal. moom moom actuellement am na moto. en 2015 amul moto damay xëy taal sama oto dem moom mu xëy dem dugg car rapide. wallaay ndeysaan. Aïssatou damay seedeel ni Sénégalais yi ne ko. man bu ko kenn gërëmul à part ay famille wam ñooñu waxuma seeni wax ndax famille wam dañ ko bëgg ba mu jeex. sama famille ñu bëgg ko ba mu jeex. Mm, dafa neex bëgg nak uh-huh. Sénégal bu dé Doudou Coulibaly bari amna benn supporter. Mm-hmm. wala benn fans. Mm-hmm. man soxna bi mi sëyal ma ngi di tok wallahi ne ak man mi jàkkaarloo moom ah, ak yow mom tok waaw. Euh, euh, mm-hmm. euh affaire bi du alal. affaire bi yëk yëk la. deug la. ak ngor. deug sutu ngor. Doudou dafa gore ba mu jeex. waaw dëgg la de noonu la mel de. ki nga toogal noonu. Uh-huh. cent franc ak un million. la yemale la yemale. dëgg la. ay satu ki nga toogal noonu. Uh-huh. Euh, bëccëg biñ ma ko mayee. Uh-huh. la gëj a taxaw sebeya woo xam lu muy fayeeku. wallaay ndeysaan. su weddee man. kii laay waxee ci réseaux sociaux lay waxee. man maay dem fayeeku salaire waaw yoo koy lépp yaa koy defaral. <laughs> Doudou Coulibaly xamul lu saako ceeb di jar. Mhm. Doudou Coulibaly xamul lu diwlin di jar. dëgg la te alalam moo koy jënd ci kër gi. Mhm. Doudou Coulibaly xamul lu mètre jesner di jar. Mhm. xamul lu dàll di jar xamul lu chemise di jar. 15 ans ci ren boo jëndul yëre jox ko ko moom soxlaawu ko. dëgg la waaw temps moom mi ngi sañ sa moom nag quand même. boo jëndul dàll. jox ko soxlaawu ko. waaw temps yii mi ngi sañ sa aussi mi ngi sol ay dàll yu rafet temps parfum bu neex jox ko bugg ko xamul koy fu ñu ko jaayee. ba Coulibaly lenn moo ko ñor ci addunaam muy famille wam. Mm-hmm. jabaram ak ay doomam ak ay waajuram leneen lu ko lu weesu ñoru ko. dëgg la sa plateau boobu ngi ngeen toog ak Doudou. Mm-hmm. waxal ma ko ni man soxnaam. Mm-hmm. bi mu sëyal quinze ans internet laay waxee. musuma def lu neexul yàlla. wallaay dëgg la. Doudou Coulibaly musuma ko njaaloo. dëgg la wallaay wallaay dëgg la. Doudou musuma ko fekk ci baar. waaw Doudou musuma ko jëli restaurant. Mhm. Doudou su waree wàcc dix huit heures bu dix huit heures quart jotee te wàccul dafa may woo téléphone ne ma dama am réunion d'urgence wala dafa am lu ma bett. Mhm. buy buy jotee foofu dafa may woo quinze minutes après mi ngi sama kër. te nag dana du doxaan aussi yokku ci du mandi du tox du doxaan. tuxul toxul naanul doxaanul Doudou amul. grand dëgg la amul fu muy de. li mu bëgg moo ko xam yal na ko yàlla. amiin yaa rabbi yàlla sax xamal ni ngi sa jabar bi ngay sëyal. Mm-hmm. ma nekk ak yow 15 ans ci mm-hmm. xol sedd na guy ni xolu yaayu Sadio Mané. amiin ma la benn yoon. li nga bëgg yaa ko xam yal na la ko yàlla defaral. te nag ku li yàlla di terale góor rek am nga ko. Mm-hmm. ku xool say njaboot ndaw leen ñu ngi jàngee ci école yu baax yi mm-hmm. sa jabara ngi dawal ci oto yu rafet yi mm-hmm. maa ngi takk ci yu baax yi xale yi wallaay dëgg la maa ngi lekk ci lu baax yi nga jekk ba dee macha allah wallaay li nga bëgg yaa ko xam yàlla la ko yàlla defaral amiin yaa rabbi yàlla wax bi gudd na yemele naa ko fii mais dama doon seedeel ni adduna bi yëpp sama xol sedd na ci ji iya, yow guy wallaay wallaay lu waay li yàlla di may góor yëpp yal na la ko may bi jaaji Seydina Muhammad ya sallallahu alayhi wa sallam duudu ko bari Cheikh Ahmed Tidiane bëgg bu may yóbbu may daari Cheikh Ahmed Tidiane Chérif yu nga ma jox bisa la tooma dara ni nga bëgg yaa ko xam yal na la ko yàlla na la ko yàlla defara man ki yow gi di mel la bëgg loo wan a la bëgg loo wax ah, maa la bëgg lii for na maa la bëgg li ma la daan wax laa lay wax. du sax ngi jooy du bàyyi jooy maa la bëgg te yow lay àndal. du doo ngi jooy ndeysaan kii ngi jooy ñu ngi jooy. beneen beneen góor dootuma tiim ci àdduna. est-ce ah sama xol sedd na. man maa seedeel lii àdduna bi yëpp maa ko seedeel àdduna bi yëpp sagal nga ma suturaal nga ma yor nga ma kukkoo dara. ku xool sa jabar man ku ma xool mm. nga ne kii ma jabar Doudou Coulibaly nga weddu ko tey yow yaa ma ko def toi tu m'as une grande dame une jooy ah, ah, ah, ah kontaan naa madame Coulibaly kontaan na kontaan naa ah Doudou maa ngi dégg na waroon ngaa jooy tuuti na Doudou mais Doudou bu soxla bi dëgër nii <laughs>